asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àddina bi seen mbokk seen xarit bu mooy nuyoo gërëm leen bu baax gërëm waa solution TV bi nga xam ni yenn saa su ngeen mëgg a dégg fa laa nekk. tey dañoo ñëwoon ngir bëgg a waxtaanee ñaari point incha allah laayante ci biir ak yéen joxe ci suñu xalaat ñaare nag damay wax ni mën naa joxe sama xalaat waaye sama xalaat képp la mën naa am ma juum ci li may wax. waaye man ni ma ko gisee loolu lay joxe dinaa waxtaan indi benn vidéo bu may gis muy circuler ci réseaux sociaux yi ci benn artiste comédien ñu koy wax Mbaye wala Alioune Mbaye maa ngi ko miin ci ay daan toppatoo sëñ Modou Kara miinoon ko ci dina ma neex ak yeneen i théâtre yu ma ko daan seetaan mu nekk artiste comédien dama ko dégg mu wax kàddu yoo xam ci diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko dinaa ci ñëw wax ci sama xalaat naka noonu ñu ñëw ci Ousmane Tounkara Tounkara lañ ko gën a xamee ci 2STV mu nekkoon 2S di mën ay ay ay affaires yu doy waar xëy xëy nekk conseil ci présidence kenn xàmmeetul Tounkara ñu ñëw fàttaliku ak yéen 2007 ci benn vidéo boo xam ne Tounkara noonu la daan waxee ñu ñëwaat en 2022 Tounkara ni mu doon waxee jàpp book deux mille vingt trois après ñu ñëw ci ñu xool kan mooy Tunkara ak rawatine invitation bi passé nan la demee ak MC Bawal ban xalaat laa ci am maa ngi ciy ñëw. kon ñu dem ci suñ premier élément mbay lañ koy wax waaye Alioune mbay ñu déglu ko dellu si waat. léegi nag kooku ñëw Sénégal gii nga fekk benn président boo xamante ni kenn mësul doo dégg lu wax nee naa la àqu àqu Macky Sall rek bis bu dalee Ousmane Sonko waxuma la président mais day am problème parce que yow mësoo jote ak moom. Ousmane Sonko li problème bi di reuy mësta joté ak président Macky Sall. Aline Mbaye amna lu umpelé Aline Mbaye euh, nam man xarabuma la parce que da nga faral président Macky Sall dedet ndax amna kenen ku falal président Macky Sall euh, Idrissa Seck wala Ousmane Sonko té ay comédien lañ ku ci nek am nga ci xalat mais sooy bu man man sooy bu lima xalat moy nit bokay faral man bëgg ko wërta tax nga bañ nit ki ba mu fess lool ba nga atane ko sosal. wala nga wax loo xam ne neexal sa waay moo tax mais li ngay wax leen la dara du ci dëgg Aliou Mbaye gis nga président Macky Sall nii man yow Sonko ak keneen ku mu doon lu ñu mën a teg ci deram bi fekk mu ngi yor suñu alal yor suñu réew dara la mënul ci ñun comme ñun ni ñu ñàkkee man dara ci moom ngir garaat bi ko yàlla jox mu jiite ñu fi toll nii tey boo demoon ci sëriñ wala ma dem ci sëriñ wala keneen dem ci sëriñ di ko liggéey mënaloo ko dara waye nonu lañu ñu manal dara ci ay ak bu ñu teg ci kaw ci deram bi parce que dafa yor suñu suñu alal ak président Macky Sall mënalul Sonko dara ak président Macky Sall mënalu ma dara li ñuy teg ci deram bi mom président Macky Sall buñ ko tegoon ci deru jambour bu yorul alalu Sénégal kon heure bi leneen lañu wax mais dafa yor alalu Sénégal yor sama alal yor sa alal leg leg mu def ci lo xamni japp na ni li ni du ni lañ ko wara ñu fal ministre boo xam ni bu fekkoon ne cinq millions lay fayeeku weeru jot këram gii ma ko romb mu am ko mënu ko am otom bii muy dawal mënu ko am xaalis bii muy mayee mënu koo am ñaata ministre ñaata député ñooy dugg sa koñ di fa maye xaalis de gauche à droite wala ñuy ñu am kër goo xam ni buñ doon fayeeku dix millions par weer ak seen frais de dépassement ñuy frais mënuñoo am kër googu ci deux ans te da ngay gis ku falu defagul deux ans tabax immeuble wala mu tabax kër di dawal ay oto yoo xam ne danga nga naan lii fan la ko jëlee moo tax ku mel noonu wala ñu mel noonu booy wax ci ñoom seen àq du la du la wàññi dara parce que dañoo yor sa alal moo tax gis nga Alioune Mbaye li Sonko di wax président Macky Sall dara la ko dul jariñ waaye noonu la mel ci Sonko tey jii su bëggoon dem liggéey président Macky Sall mënulu ko dara parce que garaat bi yàlla def ci moom maanaam garaat toogaayu président de la république bokkul ak toogaayu bu Diop nga xamé ko noonu mais akam mom mënumaa dal ndax dafa yor sama alal diko ma denk ko sama rew sañ wax ci mom luma neex ak numa neexé ci walu diko critiquer loolu mënul ci man dara Tunkara Tunkara dafa nap Sénégalais yu bari Tunkara daanel na nit ku nek te ñooñu mu daanel ay boromi xam-xam lañ Tunkara humilier na ay nit yu bari te ay boromi xam-xam lañ mais keroog bi mu dalalee M M MC eh, Bawal li ma kontaan mooy dama ni kañ laa doon am nit koo xam ne buy dem ci tunkara dama koy yeb maanaam tunkara boo nekk ko tépp ku wala nga jaxase ko wala nga humilier ko da dugal ci alxuraan ñaata saar maanaam alxuraan ñaata saar la. Oh, waxoo ñaata saar nga jàng sax ñaata ñaata saar ñaata la alxuraan am affaire complexe jóge ci Sénégal ah ñaata saar la alxuraan am xamoo ko alxuraan ñaata aaya la nga loolu du farata xam alxuraan ñaata aaya la du farata xam alxuraan ñaata saar la du farat xam alxuraan na ñaata ñaata la du farata gis nga fardul ayni ak fardu kifaaya fardu laay ni moo war ci man war ci yow war ci ki may seetaan maanaam xam ni ngay jullee ni ngay jàppee ni ngay woore ak ni ngay defee say farat mooy say fardu laay ni moom farata la ci jullit bu ne nga xam ko mais alxuraan ji tunkara di yabal nit ñi su fekkoon dëgg la ci tunkara gis nga conseil bi bii mu nekk ci président de la république bi mu duggee léegi am lu am ñu soppeeku ci constitution bu Sénégal ci wàllu diine ñaatoon lañu dugal assemblée nationale ngir criminaliser mbirum góor jigéen diine bu nekk bañ ko diine chrétiens yi dañ ko bañ l'islam bañ ko ñëpp bañ ko te ba léegi diine jooju ñun dañ ko bëgg a criminaliser jaarale ko assemblée nationale te ba léegi mënta nekk te par bi ci dugaloon loxoom appuyé ay député am appuyé député opposition bi appuyé doyu am nga laax ndéku mais ba léegi ñoo ngi bëgg a tasaat ensemble bi ci luñ doon dégg ci ay rumeur te ba léegi lu waa ba ci dara ak yeneen ak yoo xam ni diine da ciy jooy Tunkar nee na conseiller te ab donga daara la comme invité di la bëgg a raay ak alxuraan ñaata saar la te ba léegi dara moo tax keroog bi ko booy bi MC Bawal ne loolu indiwuñ fi ma ne ah c'est ça mi ngi doog a am gan gis nga Tunkara il faut nga arrêté maanaam alxuraan ñaata saar la saa suñ la dem leen ci vidéo Tunkara yi saa suñ ko dóoree mu ne alxuraan ñaata saar la moo tax tey ci émission bi saa suñ tourné Baye Assane di ma ko wax su ma ko sësee ci miir bi mu ne waaye léegi alxuraan ñaata saar la pour daw deba dem nga ba ci biir ni waaye xale bi fan la yàlla waxee ni ñuy defaree am réew même yow mi ko koy laaj Tunkara xam nga ni yàlla waxul fenn nii nii la ñuy defaree Sénégal nii la ñuy defaree Amérique mais yàlla santaane na liggéey te liggéey moom mooy euh, euh, euh, jëmale réew kanam fa ida xodiyatu salaat fantasiro fil di wax naa ko saa njogu keroog sa indil ma ci beneen baat mu ni siraatal mustaqimal mooy lan ma ne ko yoonu jub mu ni ma buñ ca jaare léegi réew mi jëm ci kanam muy nga jubal ma jubal MC Bawol jubal Sanjogu jubal Baye Assane jubal police bi jubal gendarme bi jubal médecin bi jubal douane bi jubal président bi jubal député bi jubal maire bi jubal léegi réew mi dox rek mais alquran alquran dëkkal ko ci bopp nit ñi te tunkara sa présence ci pré ci wetu président Macky Sall gis ñu fa alxuraan loolu vraiment euh, arrêté lii daal dafa suufee ñu dem déglu Tunkara démb maanaam lu tax sénégalais yi bari mere Tunkara lu tax ñu jàppal ko dara ñu dem xooli Tunkara démb ni mu doon waxee ñu dem déglu ñu dellu si waat juróom-ñeenti weer su fekkee doyul si ay nit pour ñu génnee benn carte d'identité ñin ñëpp jot seen carte d'identité si dal xel mu dal loolu day wane ni ñooñu dañoo lajji te carte yi dafa am njuj njaaj bu mag bu si am ndax nee def nañ ci juróom fukki milliard pour juróom benn million yi carte d'identité waa Algérie ñoom euh, juróom ñaari milliard lañu def si ñaar fukki carte d'identité euh, ak ñeent ñaar fukki million carte d'identité ak ñeent ñun ñu def rek juróom benn million ñun ñu def si juróom fukki milliard ñoom ñaar fukki million ak ñeent ñoom ñu def si juróom ñaari milliard kon ñun am nañu luubal xaalis bi te loolu ministre de l'intérieur moom Euh, kooku ñu ngi ko si joxoñ ndax moom moo yor marché boobu moom moo ko doon doxal euh, te vraiment dafa lajj si euh, mbir mi dafa yéex dafa lajj si sénégalais yi dañ ko jot wala dañu bindu wala dañ ko jot si fitna ba pare dafa lajj si xaalis bi ñu si def xaalis bi ñu ñëpp tey ëlëb na suñuy xel parce que li ñu si def si xaalis kenn def ko si àdduna lii mooy carte d'identité yi gën a seer biñu défar carte d'identité si aduna ba légui yu Sénégal yi moy yi ci gëna sér seer lool tam lu suñu TER bi ñu wax train bi moy train bi gëna sér bi aduna di aduna ba Tolol té lool rek liko wone moy ñi nga xamni ñoo ñoo ngank marché yi leen yitteel rek moy ñom lan lañ ci am lan lañ ci dugal seen poste mbokk yi moy mooy Sénégal li moy sénégalais li lañ leen indiloon vidéo bi gudd na ñoo ngi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Tunkara bu dee dama laa tooñ Aliou Mbaye bu dee dama laa tooñ maa ngi jéggalu jubluma ci loolu mais Sénégal waxtaan la ku nekk am nga droit pour man wax sa xalaat mais jubluma ci tooñ leen tuutaluma leen te xasuma leen te xeebuma leen salaamaaleykum